Yeah, what's up, what's up sama guys, salaam jàmm ku mbedd niggas baa ngi nuyoo leew maa ku mëj waa dégg ko fay mooy show boy ji ji jilitaire aka boy grand aka messi aka take tey nag euh, Fla The Ripper lañ seet si fas yéene waxtaan ak moom ci carrière ak ci album bi mujjee génne Kanka Moussa dugg ak moom ci bagage yu bëree bëri mais loolu léegi-léegi lay am sur émission émission seen Sama Game Equivox TV di leen ko jam grand Fla na ko asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar et am mbégte dalal leen tey. tey Fala dañ la seet si pour waxtaan ak yow ci projet bi nga mujjee génnee tout récemment mu nekk projet bu nice gars yëpp rafetlu ko mu bokkoon ci compi compétition Galsen hip hop heures yi noo mujjee moom mujjoo am ndam foofu wala. waaw meilleur album de l' année 2018 Kanka Moussa la deuxième album mu Fla et voilà ñu nangul ko liggéey biñ ci def. et ça fait toujours plaisir d'être reconnu si li ngay yëngu ñu nangul ne liggéey nga après je que ne artiste moom amul tànk gannaaw tànku kanam la rek mhm. et ça prend de l'énergie effort sacrifice ak investissement pour nga mën a satisfaire public bi. di xaar tamit public bi mën a apprécier loolu à sa juste valeur. donc ñoom si mbégte et puis voilà amul taxaw quoi carrière bi moom euh, li des maanaam li ñuy desee si kanam moo ëpp li li li jàll quoi donc gën a liggéey rek bañ a taxaw. am na solo mais fala avant ñuy dugg ci carrière bi ak li nga mujjee def bokkoon nga ci benn crew yow ak bi mi ngi tuddoon Pisco Fla Flash yi. waaw boobu fu mu mujjee solo la ñu woon quoi euh, déjà. groupe da ngeen demoon benn compétition. waaw concours lañ demoon Padois lañ dëkk. Hmm. et ñu defoon. Euh, Euh, waa Padois quoi groupe Padois la quoi donc on a mm. participé si Make It Happen. Mm. benn concours la bu benn marque euh, doon def. Mm. et voilà ñu nekk ci deuxième. jamono boobu ba Inde Chifaay lañ doon euh, demaloon final ñu Exaco après ñu def freestyle après Inde Chifaay si lañ gagné. prix bi ñu gagné génne seen album. donc c' est des c' est des amis c' est des frères on n' était pas un group c' était des artistes ku nekk solo la woon mais dañ dajaloo woon. doole pour def euh, affaire bi mais buñ ci jógee kenn ku ci nekk dafa continuer carrière ok yooyu mën nañ xam yan année la pour booy yi nga xam ne ñi ngi seetaan Fla sax xamul na Fla dafa rampe pour ñoom da xëy xëy rek dugg ci pop gaal seen génne ci album Renaissance xam nga fala gars yu bëri commencé xam Fla loolu yàgg na loolu yàgg na même man nii sax suma xoolee duma gis at ban at la quoi mm. je sais que si si si si année deux mille deux mille deux mille yi la quoi mais je sais même pas je sais même plus lu yàgg la quoi. Mhm. bu ñu jógee foofu def nga sa premier album Renaissance mu nekk album bu doy waar Sénégal yëpp apprécier ko mais Fala album boobu foo mu ak moom retour yeeg suggestion yeeg affaire yooyu noonu. waaw album Renaissance dafa marqué temps am parce que leneen la woon ci hip hop Galsen et puis gars ñu woon di gis artiste boo am benn ouverture bi di nekk Sénégal di def loo xam ne foo ko yóbbu si àdduna tam dina fa mën a dem après. amal euh, amalgame bi amoon mooy ñu bëri dañoo gëmoon ne munoo toog fi def ko ñu nekk victime loolu mu génn ñu jàpp ne Fla dëkkul Sénégal mm-hmm. donc du coup gars yi dañ teg ne da nekk fële rek di ñëw di génnee album parce que mm-hmm. euh, niveau qualité musique bu ñu leen indi loon fu ñu ko doon déggee ci artiste yu nekk à l'international rek lay doon mm-hmm. et ñun suñu yéene ci projet boobu c'était de contribuer ci évolution rab Sénégal indi qualité wan ne on peut rester ici et faire de bonnes choses maintenant après bu projet bi génnee comme on dit euh, on est dans un game boo xam ne ça ne doit pas dire que tu as fait un bon projet que ñëpp dinañ la accueillir peut-être li ngay def mun na nekk menace pour ñenn ñi dina am na ñoo xam ne tamit euh, du ñu sawar ci promouvoir yow lu ngay def parce que c'est différent ak ñoom lu ñuy def ñu bëri après penser que ne soit da ngay làkk anglais dafa am looy jaay wala bëggoo làkk wolof donc am na ñu bëri ils ont mal compris le projet même si des musicalement amul ñu ci doon wax mais approche bu ñu indi woon lu bees la lu bees lu bëri nit yi buñ ko xamul maîtriser wuñ ko dañ koy ragal donc après ça demandait un niveau d'étude pour mun a comprendre message bi donc c'était pas accessible pour tout le monde mm-hmm. liñ ci war a def ñun ci côté promouvoir ko moo tax tey nit yi gis ko ba yëg ko ba xam ne album bi mësoon na génn. maintenant après comme je dis carrière buy dox munoo wax ne album boo génn bu génnee rek bu def benn at ñaari at jeex na. tey si carrière nga nekk tout ce répertoire tey bu ñu la newoon Hope nañ la wàccee Australie. Mm-hmm. nga war a jouer festival album yooyu ngay jouer waat te ñoom day bees si ñoom parce que album boobu bu muy génn c'était un album sortie nationale la même si plateforme digitale yi génn mais amuloon plan de promo tournée internationale. Mm-hmm. parce que ñu bëri dañuy teg ne c'est aussi facile de jóg rek dem tourner mm-hmm. mais dafa laaj réseau de relation exister si marché yi puis nga am réseau foofu mun fa exister mm-hmm. donc ñu ngi liggéey loolu avec le temps ça évolue avec le rythme de notre pays boo xam ne industrie musique nekku fi mm-hmm. fii lépp dañ koy def yaa koy lijjante un artiste qui s'autoproduit finance sa clip euh, euh, te war a am vie familiale war a am ay obligations ci sa famille c'est pas toujours évident maintenant après je dis que ku nekk ci yoon dox moo la jikk mhm. donc Fla taxawul moo tax nga gis Kanka Moussa après mhm. renaissance mhm. après renaissance before playlist bi mujj génn nga xam ne ñu ngi war a def deuxième single bi nga xam ne moo war a génn en vidéo ci semaine bii ñu nekk nii incha allah on est de finaliser la vidéo donc promo bi ñu war a def ak partenaires yi ñu war a liggéey yëpp ñu ngi ciy liggéey pour carrière bi projet yi mu gën a am accessibilité maintenant ci liggéey la je pense que ne amul fu mu yem dañ ciy continuer nekk ba vraiment objectif yi ñu bëgg a atteindre yëpp ñu atteindre ko mais si yoon lañ nekk. mais albumu albumu renaissance bi Fala Bidi kan moo ko joob parce que jamono boobu euh, façon rab bi ngay rabee taamuñu ko woon di gis gars yi di ko def benn gaayan fëll gaayan bu posé ñëw di tegu ci Bidi neex ba pare di dawal danga koy dégg naan gan gee di rab dafa tayal mais keneen ko xamee hip hop bu koy déglu day xam ne gan gii lu muy def da ko maîtriser da ko mën technique boobu dafa dem ba nga xamante ni léegi nouvelle génération bi ñu ci bëri sax dañ koy def. waaw Fla quoi qu'on dise toute cette génération bi rab jamono ji Fla daf leen inspirer mhm. soo gisee relation bu ma am ak nouvelle génération bi soo gisee projet yi génn. Mhm. ak artistes yi nga fiy dégg yu bëri da ngay gis Fla seen ay projet loolu influence la bu album Renaissance def si ñoom la mooy. Mhm. ñoom période bu ñuy nekk si yoon. renaissance am na lu mu def si ñoom en tant que artiste loolu moo tax Fla am benn respect si game bi moo tax Fla gars jox ko benn cër mhm. loolu noonu du lu may ndamoo wala du may bàkkoo mais damay gis ne xam li ngay def parce que ñun ñi bokk domaine d'activité kenn ku ci nekk du réere moromam ñun ñëppay dugg studio ñun ñëpp ñooy def ay projet donc boo mënee gis nit te amoo benn soxor ak benn iñaan bu liggéey di nga ko nangul donc pour man nangul la liggéey boobu moo indi tey nga am benn connexion ak yenn artistes yi nga xam ne apprécier nañ liggéey bi gis nañ ban contribution la sa projet def ci seen mm-hmm. carrière mm-hmm. donc album boobu Mr maise laa ko defaral Mr Maze moo def production musicale album bi lépp cat ba cat pour man album boobu album bu révolutionnaire la parce que jamono boobu dëgg la beatmaker yi daanu lañ doon xam. rappeur bi rek ngay xam moo nekk ci kanam. et nous aussi on savait que ne importance su rap ak musique bu mu mënti doon musique bu ci gannaaw bu baaxul. Mhm. du dem donc je pensais que ne au même titre bu ñuy xamee artistes yi noonu la war a xamee producteur yi. te fii Sénégal amuñu woon culture boobu moo tax nga gis Fla de Ripper and Mr Maze. man ma gérer tout ce qui est lyrics. Mhm. chant bind projet bi. moom mu def tout ce qui est musical ñu boole suñu doole ñu def renaissance léegi nag euh, collaboration boobu noonu moo jur projet bi mm. et mu nekkoon partenariat boo xam ne satisfaction lañ ci am mm. parce que côté artistique bi moo nekkoon suñu focus que produit bu génnee boo ko dégloo du am dara lu muy ñeewee luy génn fenn ci àdduna et ñi déglu projet bi yëpp yàlla def na nangul nañ loolu mm-hmm. léegi nag après lu may wax mooy vulgariser ko ci monde bi ba ñëpp jot ko les artistes américains ils ont des millions de dollars de budget pour mën a promouvoir seen album ci àdduna bi ñun tamit foog ñu liggéey ba mën a toll fu ñamee bi ay millions de dollars de budget su boobaa ñu mën a xeex ak ñoom parce que su boobaa am nañ même armée on voit les Nigérians seen musique daf dañ ci def xaalis tey gis nga fu mu yem si àdduna. donc am na benn niveau du talent kese. am na benn niveau moyen la. Mhm. te pour man hip hop seen ñu ngi comprendre loolu léegi. Mhm. léegi sponsor yi ñi ah, en ah, compagnie téléphonie yi ñu ngi sponsoriser ay artistes parce que gis nañ influence bi ñu am si population bi. Mhm. donc les choses évoluent à un rythme bu yéex nag gaaw bu kàkkatare lool. waaye mu ngi évoluer. dëgg la mais Fala ana waaw Mister Maye juriste la de formation bi muy def ak man album bi mu ngi doon jàng droit France mm-hmm. et bu ñu paree album ba mu génn mu am ay diplôme moom responsabilité et parfois coller sa image sooy liggéey ci wàllu yoon mm-hmm. ak tout ce qui est entertainment mm, am na liggéey yu dul nangu nga nekk ci ba pare sa image di feeñ ci leneen mm-hmm. donc mu def stand by carrière producteur am focus ci carrière juriste am euh, et entre temps mu ngi def loolu donc euh, instant yi si loolu la nekk donc mm. euh, choix la boo xam ne danga koy respecté parce que nit du fay jàng ana ay laay fam yëpp ba toll fenn mm-hmm. nga ne ko doo topp sa carrière mm-hmm. voilà donc euh, c'est un bon producteur ku am talent ku mën lu muy def koo xam ne hip hop seen soxla na ko mm-hmm. te eh, ñaan yàlla bés bu amaatee jot bi dëgg ba mën ko ñu mën a liggéey ci yeneen même bu dul Fla sax mu liggéey ak yeneen artistes yoo xam ne peut-être am nañ talent et mun na génnee ci ñoom ak ay production ma euh, loolu ko donc sinon Mr Mise mu ngi France mu ngi Paris mu ngi def carrière juriste am na solo mais Fla da nga si def benn sound bu doy waar taaru 30 ans sound boobu du dee sound boobu bokk na ci sound yu nit ñi gën a bëgg ci Fla de Rip waaw taaru moom comme lu ñuy wax rek même album bi sax boo ko seetee Renaissance xam nga mu ngi génn 2012. Euh, premier single lu Renaissance mu ngi génn 2009 euh, mooy son bu tout porte titre album bi Renaissance. Mm-hmm. son yooyu album boobu yëpp taaroo ci mag. Mm-hmm. maanaam taaru c'est bien avant maanaam ay mun naa wax ay 2007 la xaw ma 2000 2000 2008 lañ ko job de 2008 je pense waaw. waaw yaakaar naa 2008. tey le taaru fekk jooboon nañ ko quoi après juste bu ñu tollee si album bi dafa laajoon ñu mise à jour ko mm-hmm. invité suñu grand ñang bass mu joué basse gën ko dundalaat mais sound boo xam ne sax ñun moo ñu mag jazz la soundu jazz bu yàgg la maanaam lañ samplé dañ mm-hmm. samplé soundu jazz bu yàgg boo xam ne musique la yoo xam ne euh, du dee mm-hmm. ama jazz boo xoolee ay génération génération dañuy continuer di relever yenn soundu jazz yu yàgg yi te day gën a frais parce que musique boo am am buy traduire ak émotion ak ay sens sensation mm-hmm. te nit ki fekk yaa ngi am ay émotion di am ay sensation yëg-yëg yooyu du dee yeeg mm-hmm. yooyu nag mooy feeñaat ci ci musique bi donc ñun loolu lañ traduiraat jox ko version euh, hip hop def ko version hip hop. Mm-hmm. et puis def ci lyrics et puis garder cette flavor jazz. Mm-hmm. boo xam ne tamit euh, moo tax euh, sound bi posé noonu et puis am accessibilité parce que. nekkul lu tempo bi gaaw da ngay mm. dégg lu waaj du wax nga diction bu leer mu articulé et nga bàyyi musique bi nooyi mm. parce que ay jamono da nga doon gis gars dañuy parcouriser seen texte mm. forcé ko bit bi waaw du ñu bàyyi sax mu nooy mm-hmm. donc musique tamit nu voix nekkee instrument fekk yeneen instrument dafa war a créer harmonie moo tax xam ay norme musique dafa baax mhm. moo su may dégg rappeurs yi di wax affaire bi amul norme daf may jaaxal quoi parce que dafa mel ni nga ne ci football ba pare ne doo respecté règlement bi mhm. carton rouge dina la soof mhm. boo nekkee ci basket nga dem champion ah, ah, monde ah, champion du monde basket nga ñëw nga ne doo respecté règle bi sa équipe du am ndam donc pour man lépp loo gis si àdduna daa am yoon te baax nañu xam ko suñu bëggee ñu yëkkati affaire bi si beneen niveau moo tax tey hip na ñu juraat normes yi parce que on a du mal à l'importer artistes yi sénégalais yu bëri buñ tukkee communauté sénégalaise donc la ñuy wayal lu tax tey sur le plan continental tey artiste sénégalais warul mën a génnee album fii dem Afrique du Sud du feesal saal dem Nigéria feesal salle comme nu Peace ay Peace Square ak ñoom Davido Wizkid bu ñëwee fii di ko feesal donc il y un problème mhm. il a des équations à régler il y des zones zones d'ombre yoo xam ne war nañ ci éclairer lu bëri pour affaire bi mën a dem su dul loolu naxee bi moo fi nekk mhm. ku nekk di ñoddi ay maxaama te fekk na sawaay li ngay def des na leer am na solo ñu koy bëggee dañuy génn ci album Renaissance bi dugg ci album Kank Moussa mhm. Kank bu buñ ko waxee xel yëpp ci Mali la jëm titre bi lu waral kànk Moussa Fala waaw il est bon de savoir l'histoire de ton pays xam ne empire du Mali bu muy am jamono boobu Sénégal amuloon et Sénégal faisait partie de l'empire du Mali donc du histoire u Mali histoire u empire du Mali la te empire du Mali daa ëmboon Sénégal jamono boobu jamono bu ñuy wax ay quinzième siècle yooyu Sénégal amaguloon Sénégal lu bees la waa cent ans ndax dëgër na wala année soixante la li ñu am indépendance non soixante ak léegi ñaata at la def voilà donc Sénégal ñun suñu dëkk yi ba léegi c'est des pays jeunes. Mhm. mais jamono empire du Mali loolu quinzième siècle yooyu quinzième quatorzième siècle la woon. Mhm. et Sénégal amagul woon te ñun ñu ngi bokkoon ci biir empire du Mali. Mhm. jamono boobu nag la Kanko Moussa nekkoon wàccoon si jamono. bokkoon ci famille boo xam ne ay érudits lañ dañ doon jàng diine am xam-xam maîtriser lu ñuy def yëpp. et puis nag Afrique bu ñu tubaab bi di jàngal école mais Afrique boo xam ne Afrique esclavage la. mooy. Afrique boo xam ne euh, dañoo jàppoon jaam donc yow boo demee école sax esclavage la ñuy gën a jàngal mu fës ay traite négrière te loolu day bokk ci lii euh, delloo jaam nit ku ñuul man nag ma bëggoon yeesalaat gis-gis boobu wan ne nit ku ñuul noobul la roi la buur la te jamono quinzième siècle la ko doon balaa colonisation ak esclavage yooyu yëpp kanka Moussa amoon na fi yoroon empire du Mali bi yëpp diriger ko mm-hmm. amoon xarañteef xam ne éducation moo jiitu si lépp si àdduna mooy tax réew suqaliku ndaw yu jàng te yeewu ñooy mën a suqali réew mu investir si ay collège supérieur yu ñu doon woowee madrasa madrasa yooyu bokk na si lu wasaare islam si Afrique de l'Ouest ñu doon jàng xam-xamu diine ak xam-xamu aada kooku noonu nag dem ba ñu ne c'est l'homme le plus riche de l'histoire du de l'humanité te ñun tey buñ ñuy wax ku gën a riche si kaw suuf ay Bill Gates lay jaay wan la ne nit ku ñuul dañ koo xaw delloo gannaaw ci histoire te kon jot Kanka Moussa teg pour mun a am prétexte pour redéfinir histoire Afrique. wan ne ñun lu ñu tubaab bi bindal suñu histoire sori na suñu histoire jot na tey ñu raconter suñu vraie histoire donc loolu moo nekk ci kannaaw conceptu Kanka Moussa bi ñu bëri nag tour bi buñ koy dégg jinne Kanka Moussa lañ jàppoon te xamuñu seen histoire moo ko waral donc bu ma génnee titre projet bi si laa gis ignorance bi ne ci gaa ñi ci seen propre histoire ndax xamuñ ne empire du Mali bu muy am Sénégal si biiram la bokkoon donc sa histoire la mm. yaa ko xamul donc réere sa bopp boobu moo tax ngay neex a ñàkk gëm sa bopp mm. neex a manipuler tubaab bi gëm loola ay fenam doo gëm sa bopp nga xeeb sa bopp ndax da ngay gëm neew njaam rek nga mës a nekk xanaa kon bëgg ñu delloo moo tax nga def album waaye du ma def projet bu amul lu muy jàngale Fra ku ko xam-xam ne am na benn booy bu mbind si net bi ne ma yow euh, sa texte yi day motiver nit mais ne ko mun nga ma woowee artiste buy motiver art nit ñi jàll donc artiste de motivation buy motiver nit ñi waaw parce que àdduna foog ngay inspirer nit ñi lépp loo mënti def te mënoo inspirer nit ñi lu positif amul njariñ yonente yi loolu lañ fi defoon mm-hmm. borom xam-xam yi loolu lañ fiy def mm-hmm. ñëpp ñuy jàngal lu am njëriñ inspirer nit ñi pour ñu dem si orienté si lu baax donc boo demee ba way wax war nga mën a wax lu am njëriñ boo mënul wax lu am njëriñ nga noppi donc projet FLA yëpp y a toujours un message derrière y a beaucoup de lu nit mën a jëriñoo ci gannaaw projet boobu moo jël 2018 meilleur album Kanko Moussa si Galsen Hip Hop Awards di bëgg baale waay di bu baax a baax di féliciter ren ñi ko gagné 2019 bi bu baax a baax yee mais fala album Kanko Moussa ak sa premier album Renaissance ku koy seetaan ku koy déglu day xam ni am na différence bële la gars yi gën a fil si côté hip hop ma parlant mooy Renaissance bi Kanko Moussa peut-être mbind bi mun na gën a diis parce que histoire nga ci expliquer boo may tàqalee ñaari album yooyu. waaw quoi qu'on dise fondement wu kër. moo gën a cher sax yëkkati ko. donc sa premier projet li nga am yëpp nga koy def moo tax ñu ne bi nga juddee ngay bind sa premier album bu muy génn moo tax sa premier album mënul yem ak sa benn album. Mm-hmm. léegi nag boo defee fondement ba mu dëgër. léegi kenn laam-laameetul Fla kenn jaawalew ko léegi nag mën nga rafetal nag commencé ne fii dam fii def fenêtre def premier étage fii ubbi buntu fii donc consistance bu premier album bi soxla woon mhm. deuxième album bi dafa ñëw fekk ñuy embellir di rafetaat carrière bi di joxe direction mhm. mais continuer continuité la et après foog nga mise à jour sa sa musique mhm. li nga génnee 2012 mënul yem ak li ngay génnee 2017 li ngay génnee 2017 mënul yem ak li ngay génnee parce que musique tamit toogul fenn di xaar en fonction de jamono bi day am ay couleurs yu nekk en tendance mm. am ay ay ay ay façon direction yu bees tey jamono musique dañ doon wax trois minutes trente mooy standard bi léegi musique mën na def sax une minute trent donc yooyu yëpp dañ foog ngay adopter sa musique si jamono mm. maintenant accueil bi renaissance am Kanka Moussa mënu ko am xam nga lu tax mm. première impression ngay door a découvrir bu bees du yem ak koo xam ba pare day mel ni seet bu bees ak ki nga yàggal. exemple bi soriwul sax boo ah, xoolee déeb dund gis ñi ci ñu ci bari dañuy naan bis tey. moo dàq moo dàq ci album yi impression bi la mun na am dernier album bi moo dàq bis tey mais du mën a feeñ parce que ah. nostalgie bi. léeg-léeg nga gënoon miin xam nga loolu loolu nga njëkk bu ñu koy découvrir ak moom nga gën a yàggal mm. maanaam temps bi ngay def ak renaissance defagoo ko ko Moussa nga bëgg leen comparer du mën a yem mais Fala promo bi la nit ñiy jooy promo Kanka Moussa bi lu tax Fala de Rippa def ko nu mu waree dëgg-dëgg ak album bi nu mu riisee. waaw promo album Kanka Moussa bi post promo bi def nañ ko nu ñu ko defee mais am nga tam booy def projet. Mm-hmm. yow artiste nga di nga gérer musique bi gérer concept di reyante lépp ba mu génn. Mm-hmm. mais da ngay am engagement ak ay yeneen nit comme ay réalisateur vidéo mm-hmm. ngeen joxante engagement nga jox leen sa xaalis ñu tàrral sa tournage clip. affaire bi dem temps boo xam ne. bu génnatee du am impact parce que dafa traîner. loolu nit yi duñ ko xam si gannaaw. mooy ne dañuy teg ne yow da ngay bës bouton clip génn nga bës bouton album génn te xamuñ ne lépp xaalis la investissement la ak ay nit yu liggéey si gannaaw. Mm. léegi nag souci de coordination di nga xam ne di nga liggéey ak ñoom ñu am sérieux mais am na ñoo xam ne dañuy dem si biir commencé génnee ay benk ñenk te day affecté sa projet. donc public bi du mun a xam ne. lépp yow c'est indépendant de ta volonté boo sañoon lépp du koy bëgg a def di ko ci def. Mm-hmm. et quand tu es sur plusieurs fronts Fla du label bu koy produire. Fla mooy production lay def. déggoo kenn ku mun a ñëw taxaw ne Fla maa koy produire. est donc dërëm bi ci dem yëpp Fla koy def. donc yow kese artiste si t'as de partenaire boo xam ne da ngay gérer lii moom mu gérer lii nga war a gérer ndoo lépp faaw mu am faay. Mm-hmm. faaw mu am doo mën a nekkandoo fépp day mel ni nga nekk di guerre si front yu fokk am ay front yoo xam ne day faible. Mm-hmm. loolu la nag mooy ñu bëri dañ lay seetaan naan defal li defal li mais doo gis ku ñëw nee la man mën naa ah, jàpp si lii. naa non non damay jàpp si lii te boo jàppee si loolu ce sera pas gratuit. Mm-hmm. da ngay laaj sax centage bu ñu demee bu pousse ko mu yegg fii bu lii duggee nga am lii ma am lii. Mm-hmm. mais gars yi wax rek la ñuy def. critiquer moo yomb. waaye jëf dafa yombul léegi nag ñi lay gis di wax ne Fla war na lii war na laa ñu si bëri amuñ une idée c'est pas ay bëñ defu ko c'est de l'argent qui le fait aider moi et man j'ai une famille j'ai une mm-hmm. naa dund sama du dund boobu mënu ma jël lépp xëpp ci rap bi mm-hmm. donc damay génne li ma mën a génnee mm-hmm. def ci ba fi sama doole yem est-ce que léegi leneen li ñi ko war a tóoj tey da ngay gis koo xam ne day wax Fla lii Fla laa yor na émission mais du promouvoir son Fla am kuy wax waaye Fla lii Fla laa jëndul album bi pour yow loolu mooy développer hip hop bi da gis ku yor ay millions mun na ko investir si bëgg ba kenu boppam mais du ñëw ne damay collaborer ak artiste bi ñu build dara mm. donc pour man dañu war a dépasser critiquer ay critiques yoo xam ne c'est pas objectif nga jéem a xam qu'est-ce qui est derrière le pourquoi lii doxul bu dee dëggantaan ñor na la sa dañ da dox sa tànk tubéy béy ci sawaar waar pour man hip hop Galsen tax dépassé ful fu mu nekk nii mooy ne ñi ko waroon support ñi ko waroon teewal ñoo koy seetaan mm-hmm. léegi lu sotti lañ bëgg boo yeewoo ba sa mbir sotti nag ñëpp bëgg si takk parce que dañ ci am luñ ci yaakaar mm-hmm. loolu mooy yomb mais Fala gars yi di woon nañ la bër bi mais léegi xam nu mu demee quoi mais ay temps Fala de Ripo foo tourné falaa falaa falaa ku tegul sax sa son pour moom émission baaxul mais léegi da ngay déglu émission yi wala ngay. ci yenn affaire génération la. Youssou Ndour sax ni ñu ko doon dégloo léegi waaye lañ koy gën a dégloo grand. Mhm. boo ma wax ne instant bi nii ñu doon déglu Youssou Ndour Youssou doon nekkee jamono loo temps la àdduna. Euh, euh, rien n'est éternel. mais voilà deuxième génération bi nga màggetagoo. non je dis pas dama màgget wala màggetoo ma mais dama lay bëgg a wax ne première impression wu bees bi. Mhm. nekkatu fi munoo bees chaque jours keneen mooy bees tey. tey ci mbalax mi. Mhm. duñ la wax Alioune Mbaye Der. duñ la wax Fallou Dieng. est-ce que comprendre nga. Mhm. loolu la après du tee Youssou Ndour ndaanaan la du ko wàññi dara. mais Wally moo xew ci jamono. loolooy jamono. voilà léegi nag. na nga fexe ba doon mag bu am ñam boo xam ne saa yoo ñëwee nga am loo apporter de plus pour man loolu moo am solo. le reste c'est pas ñu ngi lay diw beurre bi parce que diw beurre bi c'est relatif. Mm-hmm. diw beurre bi c'est relatif kenn du la jaawale. te ñëpp xam ne yaay kan. Mm-hmm. kon yow loolu am nga ko ci histoire rap Galsen ñaa ngi wax léegi ne taaru 30 ans du deñ ñaata rapport ñoo am loolu. Ah. voilà donc pour man fan la gars yi di placer valeur. Mm-hmm. gars yi fu ñuy placer valeur mooy coow li. te Fla boo seetee déggoo ko ci saagante ndey doo gaaw am coow Fla foo ko déggee ci message lay wax mm-hmm. donc foofu kenn du la coow nekkoo ma ci scandale mm-hmm. moo fi jël gel bi mooy ànd ak mannequin bi déggoo ko donc doo def actualité boobu parce que déggoo ma ci dara luy def coow loo ma dégg mooy ci carrière ak sérieux peut-être nit ñi loolu du doon lu doon lu gën a intéressant seen bët donc loolu la quoi mais Fla man li ma jaaxal même pas trois ans même pas deux ans falaa euh, Kanka Moussa bi falaa teg na ko nële génnee projet bu mu mujjee génnee nii before playlist non mais kaay ma wax la lenn nag. à la toppoo suivre suivre Kanka Moussa ba ci kanam ak kanam. Kanka mënuma ko suivre continuer ko parce que euh, comme on dit da liggéey si projet ak ay collaborateurs et puis sa timing ak sa programme bi nga teg suñ ko faussé. Mm. soo fa nekkee di traîner. gars yi ne wax ah album bi génnoon 2017 lay nekk di promouvoir te yaa ngi 2020 grand pour man foog nga xam ne rythme technologie nu muy dawee léegi États-Unis dañuy ko génnee 2 ba 3 ba 4 album gu ci mel 101 album la am 101 album day génnee 4 album ci at bi fii la gars yi toll ci rythme bu yéex boobu rek donc 2017 15 décembre deux 15 euh, septembre 2017 le Kanka Moussa génn mm-hmm. ñu ngi si ban année def na ñaata at. mais léegi pour man li may wax mooy nit yi nit yi rythme bu ñuy dewee yow ak artiste bi. Mm. bokkul man avant Kanka Moussa di génn maa ngi woon ci yeneen délire mooy artiste bi ni muy productifee su génneewul lu ne si moom day day traîner day day donc loolu la après projet bi si différent de Kanka Moussa ak euh, ak Renaissance. Mm. c'est le premier projet que j'ai fait 100 pour cent wolof. donc benn bu ci nekk ak direction am la mun nga déglu ñett yëpp mais benn bu ci nekk ak bosam la mm-hmm. ñu bëri dañ doon wax Fla déggul olof olofam leerul wala peut-être dafa am ay ay ay ay dese mën olof moo tax muy rap anglais lu bëri mm-hmm. projet bi réponse la par rapport ak loolu donc chaque projet booy def dafa am cible ak objectif bi tax nga koy def te yàqul dara Kanka Moussa est toujours aussi actuel Renaissance est toujours aussi actuel waaye yàqul ne dara actualité bi ci 2019 bi tu es productif de woon na yow tëddoo di nelaw yaa ngi liggéey mais kon Kankou Moussa bi jotoo si def benn clip. non Kankou Moussa am na clip grand demal YouTube. ban ban son nga ci clip Kankou Moussa am na clip am di jàmm am na clip yëpp si Kankou Moussa bokk yéene yi. mais sound sound sound bi nga def ak euh, sound bi nga def ak Pape Niang. waaw Papa Pape Niang waroon nañ ko clipper mais après réalisateur bi. no dañoo am ay différent parce que euh, nit moom kàddoom rek la am quoi mm. bu demee ba di la wax lii di jaar léegi nga dem ba après affaire bi jël ay temps mm. xam nga. li ñuy wax projet dafa am si temps boo ko war a pour nga am résultat bu nga bëgg boo ko exécuté si temps boobu rek mieux vaut nga dem ci leneen. ce que xam nga ni renaissance lu mu am mooy taaru sound boobu nga xam ni du dee. Kanka Moussa am na ko mu yéene yi nga ak Homme des Arts. waaw chaque album day am loolu grand même before playlist bi am na ay sound yoo xam ne. vidéo bu génnee. bi nga def ak Paco Brice si before bi. waaw Paco Brice ndaanaan la et puis. mu ngi def yëfam et puis respect à lui quoi. Mm-hmm. et cette génération am nañ chance su tomber ci internet di ko utiliser bu baax a baax. Mm-hmm. ñu bëri si yeneen génération yu tax sax ñu gën a gaaw dem le trait mooy du ñu mën a comprendre nouvelle technologie bi comment ils peuvent tirer euh, profit de de technologie bi lu muy indi. Mm-hmm. donc soo gisee Fla productif di génnee ay projet lu bëri lool la mooy euh, xam ne nouvelle technologie opportunité yu mu lay may pour nga gën a productif di génnee maintenant après. promotion bi lépp lu si des ku mu di xaalis la rek mhm. à moment bu mois yi bu mois yi dajalewee rek di nga mën a def li nga bëgg a def mais après danga koy liggéey doo toog di ko xaar boo toogee di xaar lépp day fay quoi pour man loolu la. voilà lu xew hmm. hmm. ko dekki laa. dama laa yóbbu démb foowee sa xel lii clé la du kese. dëgg <laughs> ah, dama lay indi démb. est-ce que nekkul yaa ko njëkk a def. waaw lii foog naa am na ku ko jëkk def nag je pense que euh, taay gi Chine defoon na si amoon na ci amoon na ci modèle bu ci def mm-hmm. mais pour man support lii lay jëriñ quoi mm-hmm. loo nit ki expérience ñu bëri buñ ko gisee dañ koy teg cassette parce que si présentation bi esthétique bi cassette la mm-hmm. waaye boo ko xoolee dañ lay indil démb boole ko tey mu jox la lii histoire la ñi nga xam mës nañ jënd kaset dañuy xam dañuy dundaat lu bëri voilà et puis Fla j'aime pas faire les choses mu yomb mm-hmm. moo tax ñi nga xam ne dañ tàmm jënd sama projet miin nañ lii si man maintenant après ñuy jënd projet bariwuñ ci hip hop Galsen coow lee fi ne rek ah, mais Fla yow projet bi gisoo di promo bi ngi door a tàmbali nag mm-hmm. parce que dama ko defoon en partenariat ak benn plateforme streaming Sixsène mm-hmm. amuloon support da nga doon dem fay cent francs abonné si seen plateforme mun a déglu lu fa nekk yëpp 24 heures. Mm-hmm. mooy zigsen point com zigsen point com zigsen plateforme la boo xam ne fi lañ nekk dañuy liggéey si monétiser musique mm-hmm. léegi nag euh, lii maa ngi koy door a génne y même pas quelques mois. Mm-hmm. mais ñu ngi dérouler programme promo bi fii ba 2020. donc am na vidéo bu war a génn vendredi prochain incha allah. et puis ñu commencé dérouler programme promo before playlist bi. vidéo boobu moo tudd na li ñuul si biir et ça traite un problème mu pétrole yi fi déggoon coow li amoon ci Aliou Sall Franck Timis ak nguur gi yëpp. maintenant li may wax mooy dëkk yi tas yëpp am problème ci affaire ressources naturelles. réeroo bi nguur yi fa nekkoon am ak seen askan leeralu leen mbir yi ba ñu dem ba gëm nañ ñi nekkaluñ fa intérêt askan bi askan bi fipp moo indi woon yëngu-yëngu yooyu donc ñun nañ fexe ba pétrole bi ak ressources yi ñu am yeneen yëpp muy gaz yeeg or yi du nekk malédiction si kaw ñi ko yor ñu leerook seen askan maanaam droit de l'information maanaam tey askanu Sénégal lépp luy ressource lu fi am war nañ xam ci naka lay demee xaalis buñ ciy am fan lay naka lay delluwaatee si askan bi ñu xam ndax nguur yi ñu fi fal ñu ngi protéger intérêt wu Sénégal ak seen askan. Mm-hmm. loolu day dalal xel yi te day tax mu jur jàmm et puis lii di ay ressources doon bénédiction. mën na nekk on a vu Qatar on a beaucoup de pays yoo xam ne am nañu ressource. te mm-hmm. gérer nañ ko bu baax mu jëriñ seen askan. Mm-hmm. donc loolu la rek quoi. mais falaa lenn tamit jaaxal na mooy si nouvelle génération bi yaa ngi koy wax si début émission bi ku ci mel ni gis naa di Doundou gis def ak yow ci projet bu njëkk bi benn featuring bu nice gis naa si tout récemment Azabes moom it ngeen def benn featuring bu nice soit boobu yow yaay woo booy yi pour def ak ñoom featuring wala booy ñoo la fil parce que dañ gis booy bu fël rek def naa featuring ak falaa te booy boobu dañ koy coow après. waaw mais pour man rek euh, montre yu yi ñoo bokk et c'est pas souvent sax kenn day woo kenn mooy dañuy xamante naturellement à travers ay nit. Mm-hmm. mu yàlla def ñoom ñu njëkkoon déglu sama album Renaissance mu am lu mu leen inspiré et puis seen carrière ñu buggoon buñ ci tollee fenn mën a liggéey ak Fla parce que mm-hmm. référence la si ñoom. looloo indi bis ni tey ma collaboré ci Dip. à travers son ami Bouba boo xam ne si staffam la bokk sama petit frère la. Mm-hmm. sama koñ la dëkk man moom ma wan affaire u dip et bu ma wanee affaire u dip ñu xamante mu présenté ma dip après bu mu demee tool war a def projet bi mu am benn son bu mu sentiroon Fla ne fii Fla laa ci sentir et puis ñu wax ma ko ñu dem def son bi noonu la génnee H de Best naturellement j'ai vu muy fayet di ko teg ma gis ko si Instagram ne ko gis naa sa liggéey. jàpp si rek affaire bi day baax et tout mu ne ma ah occasion la sax man dama bëggoon def ak collaboration ma ne ko loolu boo ko bëggee si man di nga ko am parce que métti ma leen ko bu nekk ci yoon mais mu gëm tra liggéeyam di di ci sonn di ci def investissement di ko teg ci yoon mm. donc ku jàppale ko day neex quoi ku nekk ci yoon ba pare day neex a àndal quoi mm. donc loolu mooy yombal collaboration yi mais souvent c'est pas lu ñuy forcer wala lu ñuy chercher mm. ça vient naturellement am na leneen tamit lu ma seetlu si yow falaa buy rab buy déglu bu commencé couplet bi anglais da koy jeexaleeg anglais bu commencé couplet bi wolof da koy jeexaleeg wolof xaw ma ndax loolu yaa ngi ciy bàyyi xelam déet gis naa yeneen booy rap anglais ku ci mel ni Deep Dose mun na teg benn benn benn couplet tegal la ko anglais mais da koy mélanger ak wolof mais falaa bu tàmbalee benn couplet wolof da koy jeexaleeg wolof bu ko tàmbalee anglais da koy jeexaleeg anglais. waaw mais ko defee message bi ñii di déglu gën a. shout out to Deep Dose ndaanaan kulli fat leen jàmbaar la. Mhm. et artiste bu ma respecté si fii lu muy def jot nañ collaborer benn son sax boo xam ne génnagul si benn projet di ko def shout out deep waaw lu may wax rek mooy euh, Fla moom xam nga j'ai j'ai j'ai ce côté universitaire mm-hmm. je suis diplômé de Cheikh Anta Diop def littérature jàng anglais foofu tout et puis def sax ay euh, linguistique jàng wolof bind ko mm-hmm. donc ñaari côté yëpp am naa ci xam ne pédagogie boo bëggee jël xam-xam teg ko jël ko ci sa xel def ko ci bopp ni dafa am lu muy laaj su fekkee dama ko mélanger trop ak olof bi mm. anglais bi du xam lu may wax wolof bi du xam lu may moo tax bu mu ci jëkk jël damay xam ne lii may bëgg a wax message bi waa bitim réew ak képp kuy askanu doomu aadama kuy nooy mm. laa bëgg nga jot message bi te xam naa ne àdduna bi yëpp làkkuñu wolof mm. su boobaa damay làkk anglais mais bu dee loo xam ne c'est ciblé Sénégal rek laa bëgg ñu dégg li may wax ñu comprendre ndax message bi ñoo ko moom su boobaa wolof kese laay làkk du may bëgg di ko mélanger trop parce que mélange bi mun na jaxase xel kuy déggut mun a xam mu benn jël jot maanaaw lu may wax quoi loolu moo tax su ma ci jëlee wolof dama koy yeggali bu ma jëlee anglais dama koy yeggali en loolu noonu xaw ma ndax gars yi ñu ngi siy bàyyi xel mais nan dem déglu jiwaat sama Fala yi dinañ gis li ma wax mais Fala sa link ak waa Alien mi ngi nice ba tey wala album bi Alien Zik lañ ko enregistré before kon Dixa moo ko mixé masterisé on change pas une équipe qui gagne mm-hmm. sama musique nu mu yàgg mel ba léegi noonu la mel qualité bi fi nekkoon moo ci nekk et Alien Zik c'est la famille quoi du juste affaire de son quoi mais sa xarit yi nga xam ne si yow lañ bokk quoi. Mm-hmm. dem ba ay frère lañ xam mais même bu ñu enregistré wul son sax damay dem toog foofu ñu teg caa waxtaan añ fa. Mm-hmm. donc du musique moo ñu lié quoi c'est plus plus fort que la musique donc big shout out à Alien Zik studio moom moo taaral sama musique loo ci dégg mu set neex nice charismatique Dik Saala ak collectif bi yëpp ak sama gars yëpp bari mu ngi si biir projet bi ama Fala am na benn affaire boo xamante ni sénégalais yi dañ la ci mere nee nañ Fala du teg. Euh, des na si koo xam ne suivrul mais Kanka Moussa am na concert bu ñu def Douta Seck c' est que ne mu bëriwul bëri bëri boobu ñuy wax c' est parce que j'ai pas seulement la musique dans ma am na yeneen lu may def bi nga ñëwee fan nga ma fekk. voilà donc voilà donc du musique kese laay def sama live. maintenant après musique bi bu ko laajee bu ko projet bi laajee ak ni ma ko bëggee jekkoo ma jekku ko noonu dinaa ko teg mais pour nga teg ko tam il faut mu am sens doo ko forcer. Mm. parce que quoi qu'on dise affaire bi business la da nga ciy def xaalis pour mu génnee xaalis bu ma yëgee ne bu ma ci defee lim ci bëgga def naa ci am lim ci bëgg a def ma koy def ah, te ñu ngi approché seen directeur. Mm. et puis on on prévoit de faire des choses ensemble ñu ngi ciy waxtaan bu yàlla defee loolu yëpp sotti teg boobu ñuy wax. nañ teg tegaat teggi tabax mu kawe. incha allah yow Fala lu ñu cëraloon ci wax lu mat na lan laa la laajul sa nga bëggoon ko wax. waaw damay sant bu baax di am mbégte di mën ba léegi di échangé wu parce que ba léegi maa ngi bëgg a yàgg si game bi. Mhm. mun naa wax dix ans léegi. mais ñu bëri nee nañ falaa album Kanka Moussa bi doon naa toog avant ngay génnee sa projet bu mujj bi ñu ne falaa est-ce que du bàyyi rab doon dooni isbu. pourquoi pourquoi ñuy wax loolu yow pour yow. Ah, peut-être dañu gis ni falaa ay yenn publication yi muy def falaa mbiru sëñ bi doo ko sonal daal. <laughs> Ah, sant yàlla bu baax a ah, loolu de ban bu man loolu compliment la. Mm. ñu ngi sant yàlla bu baax waaye damay wax rek ne nit ki moom àdduna nga nekk waaye xam nga ne du sa kër. Mm. dangay jaar dem foog nga waajal sa bopp. te képp kuy jeune tamit bul topp àdduna di te tëñëx di dem de. Mm. fii dara éternel bi. ndekam yonente moo dem ñëppay dem sëriñ bi nag ndimbal la si jaam ñi ku mën a jëriñu na nga jëriñu pour man looloo fi ne. après gars yi fu ñu lay xaar mooy nga nekk ci yenn yi vraiment fla mag na loolu quoi vraiment am naa cër ci sama bopp am cër ñi may déglu moo tax mënuma nekk ci yenn caaxaan yi quoi mais sinon bëggee bote quoi jàmm yaa salaamu quoi waaw mbeddukum alekum saalekum bu la neexee salaam kum <laughs> ah, mais grand kontaan nañ de kontaan nañ ci émission bi trop kookoy grand Fla de Ripo from Patte d'Oie Builders waaw di wax ni sama gars yi. Equivox TV la woon projet baa ngi nii. bu nekk projet bu doy waar projet bu nice fala waaju classique rabam dafa neex boo koy toog di ko déglu da ngay xam ni gan gi du la sonal si ak ay bruit yi mais da ngay toog di déglu bi di neex di toog di déglu waaju teey di la rabal nga koy déggee non gars yi yàgg naa leen yan li ñoom xam nañ lool si man <laughs> rendez-vous beneen yoon dinañ fi amaat beneen daanaan Equivox TV la woon jili der gaal seen sama game respect si ñëpp jaajëf